alors li waral donc loolu mooy que ne résultats yi dañ ko daan joxe ci ay anam yu bari euh, anam yi ñu jël ren ci la bokk maanaam SMS yi ñuy envoyé xale yi rajo yi ñu koy wax ak tam affichage maanaam taf bi ñu koy taf ay kayit loolu lu ñu mës di def la mais dafa am leneen lu ñu daan def aussi loo xam ne moo gënoon sax siw parce que loolu ñu ci bari moom lañ gënoon a miin mooy dañuy woo nit ñu ñëw après ñu rapel leen loolu la ñu wax ne ren du ñu ko def. parce que bo len wo ñu ñew and ak seen njabot and ak seen xarit dajalo day am dajalo bobu mengo wul ak xex bi nga xamne mom lañuy xex mbass motax ñu ne ren euh, wote bobu du am legi nak yenen anam yi nga xamne mom moom lañ daan jëfëndiko muy sms yi muy radio yi muy taf bi yoyu dina am té nak dañ leen di gëna sax euh gëna dolel manam lool motax xagn na nit ñi di wax mais loolu nekul lu bess dara bessu ci loolu yëpp dañ ko daan def ki nga xamne mom moy président de jury bi Euh, mom ak jurém buñu défé sen examen bañu def sen délibération ba am seen i résultat am yoon wu ñuy jaar pour résultat yoy ñu wax ko ci radio yi mais amna yoon wu ñuy jaar aussi pour résultat yoy ñu def ko ci ci SMS euh diggante président de jury pour def ci SMS bi diggante président de jury bi ak office du bac amna na ñeneen ñu fa nek ñu ñu wax superviseur ñooñu am na jéego boo xam ne ñoom ci wara a dox bu ko defee bu mbir mi yembee donc xale yi dinañ jot seen SMS. Euh, ni muy demee mooy bu ñu jotee résultat yi xam nga résultat moom juri bi moo koy defar mooy dañuy délibéré dañuy toog xale bu nekk ñu jël note yi nga am après ñu saytu ko daal dina yow lii moom mooy sa résultat maanaam jàll nga wala da ngay dem def ñaareelu pàcc bi wala jàlloo léegi buñ ci ti wax rek léegi dañ koy bind ci kayit. léegi nag kayit googu moom la ñuy jaarale fi ñu ko war a jaarale pour que mu mën a dem ci SMS bi. Euh, amul différence c'est-à-dire que bu yàgg ba ak bii yoon amul différence maanaam bu yàgg ba bu ñu pare examen bi xale bu nekk da ngay jot sa résultat euh, candidat bu ne da ngay jot sa résultat bii itam bu ñu paree candidat bu ne da ngay jot sa résultat d'ailleurs bu yàgg ba sax candidat yi jàllul daawuñu jot seen résultat maanaam ñoom bu ñu waxee bu ñu tuddee ñi jàll ak ñi war a def xaaju pàcc beneen deuxième ñaari pàcc bi ñi déggul seen dañuy xam ne ñoom dañu bokk ci ñi jàllul. mais bi yoon même ñu jàllul dinañ jot euh, bataaxal bu leen di wan ne yéen jàllu leen bu fekkee ne ñun am nañ seen contact